ko parce que déjà lajjite yi dafa bëri ci dorteelu euh, processus bi bu ci njëkk moom mooy déjà euh, waroon nañu jot formulaire u parrainage yi euh, avant le 25 normalement parce que le 25 la ñu xaatim arrêté bi 150e jour bi avant mais ba ñu yeewoo ci ëllëg sa waroon nañu mën a wàcc ci langue bi di dagan di taataan en tout cas parrainage yi mais loolu mujjuta am donc daanaka maanaam perte nañ ci ñetti fan. mais bu loolu wooyee tey gis ngeen ko ba ñuy joxee formulaire u parrainage yi daa ñi nga xam ne dañ leen ci beddi comme Ousmane Sonko loolu dañ koy ñaawlu loolu aussi day indi déjà benn lajjite bi nga xam ne aussi day tey xel ci ëllëg bi nga xam ne en tout cas nar nañ ko gis ci euh, njeex euh, njeexitu élection yi en tout cas njeex euh, nan lay jeexee plutôt élection yi di ñëw mais aussi bu ci tegu moom mooy fichier électoral bi fichier électoral bi dañu ne dañ ko réactualiser ñu ne daanaka lim bi mat na juróom-ñaari Eh, millions ak lu teg eh, parce que daa am ñi ci yokk ñu leen di woowee primo votant mais ñoo ñooñu tey euh, déjà dugal nañ leen ci lim bi mais seen i carte jotaguñu ko dara waxuñu ne ñoo ñooñu danañu dem effectivement jëli seen carte wala même bu ñu demee est-ce que ndax danañ ko fa fekk wala ndax danañ am patience su toog ba jot ko mais ñoo ñu déjà dañ leen jël ci quotient bi ne ñu nag dangeen di indi 0,6 loolu nag moom laa yàgga a dénoncé